Eh, dañ ci waxtaan ci walum ar ñu gëna a eh, yaatal comme eh, ni mu leen ko waxoon no lay démé daas real hip hop ok di bëgg ñëpp di ziar ñëpp képp ku xamni instant bi yaa ngi déglu couleur urbaine sur la mer de bande fréquence 93.5 euh 5 Ngaye FM no lay démé ala la cabine yaa ngi am fofu non Adja Kouyaté Adja dëgg live nañ incarné ak sunuy carnet ba tax na ñu kar ñu nuy jaay honnête te fekkante yow boo xool seen xool dafa honnête ala ñi doon ree tey laay doore di leen ree fa seene ñëwal sama la may ba ñaw mën naa te du ma si ñaaw ba si ñëw di leen gën di bës mën naa leen tës rës ma mel ku taasu ci léeri dóor waar matale waar dóor waar matale waar represent hip hop yaatal areenu rab bi ñu ngeen seeni maan Tough connection. Tough connection. Yeah. Real rap, real rap. Purchase your tracks yeah. today. Real rap, real rap. Yeah. Des groupes pour l'autre urbaine, à ma main, Tough Connection. C'est tous les dimanches à partir de 15h, qu'à 16h. Yeah. Real rap, yeah. Fan Lecteré, Chingai FM. 93.5, yeah. Yeah. Des groupes Tough Connection. Yeah. Yeah. ok noonu lay demee di bëggee képp nga xam ne euh, mos nga euh, jaar ci émission couleur euh, urbaine di bëggee sama réel bro Fall Yaram ok mën nañu wax ni moom moo ubbi couleur urbaine MC Thia ok noonu lay demee Xës Elzo di bëggee ñëpp ah, di bëggee ñëpp képp ku nga xam ni yaa ngi scotché sur la meilleure bande fréquence 93.5 Ngaye FM toog di déglu couleur urbaine ak képp ku nga xam ni bon aar moo la tax jóg aar moo la ñor ok xamal ni que ni yaa ngi ci biir. looloo waral tey ma invité euh, sama frère euh, euh, mi ngi nii si plateau bi incha allah si kanam tuuti naa seq ak moom waxtaan ñu gën a yaatal lu bëri ñi nga xam ne ñu ngi déglu ñu bëgg koo xam si moom dinañ ko xam mi ngi tudd Ndioumane ñu gën koo xam si Mori gisee yàgg na bay waaram ci aar bi théâtre ok noonu lay demee juste tamit pour wane que ni euh, am am ngay am nay ndaanaan yàgg naa am ay ndaanaan yi nga xam ne ñu ngi bay seen waar euh, ci wàllum théâtre ñu doon ay exemple parce que bi mu dooree def théâtre ba léegi dégguma dara lu ñaaw si moom bon exemple lay wane ok mën nañ wax que ni bay na waaram parce que euh, nit ki boo nekkee si mbir maanaam ngay tàmbale di door di di def ndànk-ndànk nga tàmbale si dëkk bi ñu commencé laa gis ci ci yeneen plateau ngay lëkkaloo ak ñeneen kon mën nañu wax ni joxe na bon exemple ci aar bi kon euh, jeunes yi nga xam ne ñu ngi nekk au niveau de euh, mécanique bu fekkente ne dañuy ut ay exemple rek am na exemple yu nekk fii am na ñeneen ak ñeneen incha allah si kanam tuuti euh, na seq moom waxtaan ñu gën a yaatal léegi Adja da nga may jox benn son en attendant noonu lay demee. ah bisimilah jom hip hop ba jàmm gaam ah Mr ba jàmm gaam real MCs ba jàmm gaam ah ma voix. Amavans ay yéen ma fekk si fii ci fas yéen ma delloo daaray dunya ah ba anten ngeen sama charia xam ngeen ni moos diis naa di gu laaj xam daaj dégg daaj jàpp daaj dëkk si daaj dëkk di daaj ba ku gis di jàpp daaj te ton yi ngeen ma ton ci yoon yoon yi ma ñëw ci jamono dégg nga maam ñàkk ma jox cër ma fu ma dëkkuwul ñii di jaay xam-xam ba di ma fenal ñee di jaay fit ba di ma réeral ñële di jëriñoo sama bayre ngir am geel borom ñàkk bopp bu jógul si ma fexeel yeneen musique yi ñeema ba di ma fexeel ak ñii di ma dundee te bañ maa dundal ba ku ma gis di ma ñaawal tax na ma dee Sénégal ñàkk ko xam gi ngeen ñàkk ko xam sànde gi di hip hop dey tax na bëggatuma dellu Sénégal te ñi ñu jot a xam si sama waa kër dégg nga maam dance teg rap di ying MC kenn dundalu leen Sénégal xanaa xamu leen sama melokaan weesu na underground gang sa hardcore roof ne kii funk love style gris ego trip freestyle joogi joog old school new school duma varié te duma lu ñuy varié suuk salsano duma variété duma lu ñuy varié man rap révolution act population duma xew yi duma sàppi duma yit kuy dee ndaxte dëgg du dee ha ha ha da ngeen maa umpale benn journal ci wàllu information kon war ma mën a doon ku ñuy foowee ndaxte kuy nàmp ba kumbe jaaw ku ma déglu ma wax la sa njëriñ te su ma doonul sa garab gon la sa sëriñ xoolal niñ may màggalee fii ci Barza man rap rap naa lu jiitu dëgg lu jiitu lu MC rap rap kon soo leen bëggee ma del si déy ma dekk déy da ngeen may jox cër jox cër képp ku ma jox cër bépp MC joxande cër sambal ma real real hip hop te di gëstu deneen ma gëstu jox saa waa ji ñaan concert di ma play en live bu leen fàtte soirée hip hop son son ma son ba ma son te ji sama cassette ko defee ma del ci Sénégal hey ma dey la léegi nag yeewi naa leen mën ngeen a dee maa ngi seen ginnaaw waxuma ak seer te ab seer mënuma jëriñoo waaye mënees na ma defar ab seer ba mu doon ku ñu ràññee ci jamono Sar Sarane ok noonu lay demee ak euh, couleur urbaine comme ni mu leen ko waxee woon sànq Euh, Njumaan euh, moo doon sama invité noo daati noo daati sam euh, Njumaan la mais ñi ñi ngi ko gën a xamee si Mori Guissé moo doon sama invité comme ni mu leen ko waxee couleur urbaine du maanaam wàllum hip hop rek wàllum aar la lépp lu nga xam ni dafa laal ci moom wàllum théâtre ok noonu lay demee parce que ñoo bokk mbir mi ah, parce que lépp communication la parce que dañuy yeete di sensibiliser euh, nit ñi noonu la fa demee euh, ma bàyyi ko mu euh, présenté wu mu waxtaan ak ñu nga xam ñu ngi déglu couleur urbaine képp tamit ku bëgg a ko moom mën ko composé 88 628 16 50 88 628 16 50 nga jàll live and direct. waaye Teuf Connection maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm. Mm-hmm. di nuyu tamit. di nuyu hmm. Adja Koyaate hmm. mi hmm. nga xam ni moo nekk ci technique bi maa ngi koy ziyaar bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax euh, waaye di nuyu tamit suñu directeur général Mahmoud euh, Diop maa ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal gudd fan ak weer di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu euh, ci émission bi yëpp yëpp yëpp yëpp waaye di nuyu tamit ki nga xam ne mooy suñu xarit di suñu waay di suñu lépp di ñu jàppale nag bu baax a baax a baax a baax. mooy mm-hmm. ki nga xam ne mooy xaadim ndim. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di nuyu soxnaam Awa Dia mais di nuyu tamit ki nga xam ne mooy jabaram tamit di soxna Jaañ. Mm-hmm. maa ngi nuyu Assane Silla foofu ci sunu réew bi doon suñu xarit tamit maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm di nuyu soxnaam Oumy Mbaye bu baax. waaye di nuyu Balla Diop maa ngi koy ziar Chéri Aïda Diop. Euh, boroom ki nga xam ne dagg te du dëngal. Mm. maa ngi koy ziar moom dañuy jàppale bu baax a baax. Mm. di nuyu Basiru Mbay mi nga xam ni defarkatu daal la foofu tamit ci suñu bi. Mm. maa ngi koy ziar bu baax dëkk foofu ci Plaine Pond. mais di nuy tamit nga xam ne mooy Thierno Ndiaye foofu ci Njéen. moom tamit doon suñu xarit ñu ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm. di nuyu waa Njéen yëpp. waaye maa ngi nuyu tamit euh, ki nga xam ne mooy Xaadim Fall. commerçant foofu ci Ngaye Mexe maa ngi leen di ziar. di wax rek yàlla nañu commencé ci bisimilah rahmaani rahim mais yàlla na nañu yeggaleet yi alhamdulilahi rabbil alamin hmm. lu fi dëng ñu xam ne ñun ñi la hmm. lu fi jub nag ñu sante ko suñu borom bu baax a baax hmm. ok noonu lay demee comme ni mu leen ko waxee euh, Ndioumane moo doon euh, sama invité euh, question bi la njëkk laaj laaj mooy lan moo tax ñu tuddee la Ndioumane lan moo waral Ndioumane Ndioumane xam nga man sama turandoo dafa sant mu mën jum sama turandoo moo sant jum léegi nag sama xarit yi may àndal ay Cheikh Lam ay ndem si yàlla Madiagne ay Cheikh Lam ay ndem si yàlla Madiagne ñooñu ñëpp ay Lat Ndeela ñoo xam ne mënu ma leen a lim. Hmm. ñoo may wax njumaan. Hmm. ndax euh, sama turandoo bi sant jum. Hmm. léegi ñoom ñu jul jël euh, sant jum bi. utiliser ko naan njumaan. loolu moo ko indi mais nag ki ko gën a siiwal mooy Madiagne Ndiour. xam ba comme boo nekkee ci ci ci ci rajo bi. toujours moom njumaan lay wax. Mm-hmm. léegi nag loolu moo tax nag tur bi gën a law ba nga xam ni mm-hmm. sëriñ si sax ak kilifa yi yëpp sax léegi sama la ñuy wax waaw mm-hmm. man nag dama yaakaaroon comme par exemple comme euh, uh-huh. la kii uh-huh. uh-huh. euh, sa turu seen euh, moo tax moo moo sant moo tudd Jum léegi nag turu njumaan boobu la gaa yi utiliser nag xëcc ko di ma wax njumaan. Mm. Mm-hmm. ok ok kon leer na. maanaam euh, comme par exemple euh, yow euh, théâtre théâtre nan la la nan la la nan la la dikkee. Mm-hmm. nga yàgg seetaan théâtre mm-hmm. wala comme ñu ñu bëri ni ñu koy waxee danga yàgg xool am nga am idole si théâtre ku nga xam ne daal dafa la neex si théâtre wala nan nan la nan la la kii nan la la dikkee sa bëgg-bëgg théâtre wa xam nga ñun dañ daan def eh, d'habitude di seetaan ay mardi théâtre hmm. eh, yi bi mu affaire bi demee nag noonu ba nga xam ne ñu ngi seetaan théâtre yi eh, hmm. foofu xam nga virus bi lay dugg parce que da nga koy da nga koy teg dëgg surtout nga gën a nekk xale hmm. mais bi ñu demee ba 1990 bi ASC ngiwal formé lañ daan def ay théâtre ci ci ci ci ci ci koñ yi ci noonu nag lañ doon théâtre mais man boobu tamit maa ngi doon nekk ay figurant mais jour bi ma njëkkee théâtre hmm. mooy euh, quatre-vingt-onze jàpp quatre-vingt-douze hmm. euh, euh, dafa amoon benn ku suñu benn grand bu fi daan ñëw ñu koy wax Laay Guèye nekk doomu mbóol Seck hmm. dëkk fële ca Louga ñu daan joué affaire buur yeeg affaire cosaan yeeg xeet yooyu léegi nag bi ñu répété ba xam ni boobu dañ daan def euh, ASC bu nekk mm. euh, guddi gi dañuy daje fële ca terrain central mm. foofu ñu def basket bi mm. kenn ku ci ne nga joué euh, sa cosaan boobu ñu ni nag ataane boobu ñu ni nag Lat Joor la ñëpp di joué jour boobu nag ñuy répété di répété man ma doon dag bi ban ni suba la laay géey daal di am ku gaañu Louga mu dem bon jàng na mi nga xam ne moom moo nekkoon suñu metteur en scène daal ni nag non jumaan Laay Gueye moom su demee yaa fi sës. Hmm. yaay def affaire bi ma ne ko non mu ne ma yaa koy def. Hmm. jour boobu nag laa njëkk yéeg ci seen jouer virus bi dugg ma nag en même temps avant bu ma yéegee tamit. Hmm. ñëpp apprécier li ñoon def mu mujj nag léegi nag nag commencé nag nekk ci affaire yi. boo xool ñi ma ko doon defandoo ñu bëri bàyyi nañu. mais virus bi foofu la ma duggee nag. mais nag loolu moo nekkoon di nga xam ni da koy fowantoo nii rek. Mm-hmm. mais bu dee théâtre dëgg nag ci affaire professionnel mm-hmm. kooku Sidi Mbuub moom ma ko jàngal. Sidi Mbuub mu ngi dëkk fii ci Ngaye euh, ci Mbambara. Mm-hmm. moom ma booleeg waa vision mondiale yi fi nekkoon ñu leen defal ay sensibilisation sur le sida. ak ay sensibilisation alettement maternel. xeet yooyu. grossesse précoce yooyu yëpp moo tax village yi boo gisee ñi doon sama ay xarit. Mm-hmm. avant dara di xew yàgg naa faa dem di leen bëggal ci xeet yu mel noonu. Mm-hmm. loolu nag après nag ci la ñu njëkk a dem nag 1995 Sidi Mbuub boole ñu ak ku ñuy wax Moussa Mbuub. Mm-hmm. moom euh, moom moo njëkk a filmé benn théâtre bu ñuy wax Njuumte Erreur. ma ànd ko ay ñoom Rama Thiam ak ay ñoom Ibra Italien ay ñoom Faye Ñang ak ay Mëjjaañ ak. ñooñu génération boobu 1995 laa njëkk a bokk ak film. Euh, parce que ñooñu kii ñooñu nga jot a tudd mel ni ay Rama ak mhm. euh, Ibra Italien. Mhm. ñooñu ñëpp ay euh, figure lañ mhm. maanaam xam na leen ci wàllum théâtre kon ça veut dire que yàgg nga lëkkaloo ak euh, prof ay professionnels. Mhm. am na sànq koo tudd euh, ku mel ni Serigne Mboup. Mhm. Euh, nga bu dee wàllum théâtre mhm. moom moo la ko jàngal. moom ba xam moom ba xam da nga ci ci ci yeneen kii ak ay wala nan la fa demee wala moom dafa def formation bi wala par amul ba ba moom mu jàngal la. kii carrément kii def théâtre non mi xam nga Serigne Mboup maître d'éducation la. loolu moo nekk fonction ci la liggéey ba retraité. ba pare daf daan gagné ay marché mm. maanaam ONG bu fi mus a ñëw mm. boo soxlaa ay sensibilisation parce que dafa am ay dëkk yoo xam ne mm. soo fa demee dajale nit ñi pour wax ak ñoom du yomb léegi moom ñu waa vision mondiale jëloon ko moom ak waa ak ak waa Thiès yi ñoom Cheikh Seck ñoom musaa Seck ñoom ñoom Serigne Ngagne ñooñu dañ daan jaar gauche ñun ñu jaar droite ba koroog ñuy daje kenn day jaar groupe day jaar ñii di sensibiliser ñun ñu jaar ne dans sensibiliser ba ñu croiser loolu la daan def mais Sidi Mboup euh, mais dédication populaire la métier la léegi nag ñun bu ñu musaana indi ni tey par exemple dañu soxla euh, euh, allaitement maternel wala hmm. nampal sa doom ci sa ween hmm. bu ñu ci daan jouer non dañuy indi Sidi Mbu wax ko ni ko lii lañ bëgg mu am ak lii ak lii ak lii. mais boo gisee sax man scénario ma gën ci xarañ. mooy Sidi Mbu bu nu musaana ñëw ci saalam la ñuy teg. daal di wax ni lii moo koy joxe. lii moo fee bu fekkee feebar la mu ne lii moo koy joxe. lii moo koy dànk. lii mooy tax doo feebar bi du la dal. daal nag xalaat leen yéen kenn ku ci ne indi sa xalaat. ñu daal di teg seen sketch foofu. commencé nag wër ci dëkk yi village yépp fii ba ba ngay Pire sensibiliser comme par exemple tamit euh, nga des fois rôle sensibilisation comme tout récemment ñu dégg Sénégal fépp ah, mi ngi lu corona virus comme par exemple en tant que artiste Mm-hmm. instant bi boo doon interpréter benn rôle bu nga xam ni da bëgg a sensibiliser askan bi mm-hmm. parce que je crois que euh, ak théâtre mm-hmm. mooy meilleur mooy meilleure solution bu nga xam ni askan bi nañ si jot comme par exemple bu dee wàllum nasaraan beeg wala yeneen ak yeneen

Euh, ba nga xam ni tey bu fekkoon ñun woonan nu ah ni ñun dañoo bëgg nga defal nu sensibilisation ci wàllu coronavirus bi hmm. ci ngay xam ñun lan lan man parce que dañ koo jàng loolu dañ koo jàng maanaam théâtre bi hmm. tëbuñu tëb rek hmm. nii nii rek nekk ci tëbuñu tëb nii rek nekk ci de jàng tër bi yu ko dugg fu ne dem fune ne mu yàqal na lu bari loo xam ne tey jii bu fekkoon si c'était à refaire mën naa am duñ ko defaat kon du loolu lay làmbatu mais tey bu fekkoon dañ maay woo tey jii ni ma defal nu waxuma sax coronavirus mais lu mu mën a doon. Mm. feebar bu mu mën a doon. Mm. ñun dañoo bëgg nga defal nu ci yee yee ci askan bi. Mm. ci la ñuy xam ba xam ne ñun li ñuy def dañ koy làmbatu wala de. wa légui comme par exemple euh, dama bëgg nga improviser comme euh, euh, nga improviser ni rek comme ni ma la ko expliquer mhm. juste pour ñu mën a sensibiliser askan bi si fièvre boobu instant bi nga xam ne mi ngi lëmbe jamono. Mhm. comme par exemple yaa ngi suivre actualité bi. am na mhm. loo si jot a capté. waaw nii rek nga improviser. non bu ñu doon improviser mooy ñu ñu raxas ñu ñu wàññi d' abord nuyoo bi. xam nga. parce que sénégalais boo ko nuyoowul boo ko boo ko gis romboon léegi joxoo ko loxo. mais day da day day defe da nga ko xeeb. Mm. soo ko rombee joxoo ko santam. Mm. dana nuyoo ko. Mm. da nga ne asalaamaaleykum rek te asalaamaaleykum mooy nuyoo. kon ñu war di wax asalaamaaleykum. benn beneen bi des mooy ñuy raxasu ba set. baro da ngay romb nit fii léegi nii mu ñandoo. Ah, ñandu fomp ci miir bi lay def. tey ñandu fomp ci miir. wala bu ñanduwul fomp ci mir, hmm. mu mu fomp ko ci ay yéreem hmm. melni ku ko melni ku ko raxaso hmm. paré na ci bu dajé ak yow dalay nuyu yoyu il faut que ñu ñu ñu xalaataat ci des fois da ngay dem ci xew raxasu yi ni ni raxaso mais raxasu yoyu ñuy raxasu dañ ko wara xolaat bu baax parce que mëno tek ben pan mais mais mais 50 personnes raxasu ci ben pan mais koku raxasotul dafa set dafa tak Euh, euh, euh, benn ngi noonu ci raxasu bi. Mm. Mm. mais ci biir raxasu boobu tamit dangay gis koo xam ni waxuma sax non seulement raxasu bi. Mm. mais da ngay raxasu ba pare toog benn waaye jógee fële di doog a yegg si di ñëw au lieu ni salaamaaleykum mais du wax salaamaaleykum day ñëw jox ku ne loxo. te fekk ñooñu raxasu na ba pare te bu ñu tegee boolu añ bi ñoom ñëpp ñu àndaat di añ. yooyu ay microbe la yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a xalaataat. Hmm. waaw yooyu yooyu yu yu duñ buñ koy wax duñ fi jógee hmm. yooyu yëpp mën nañ mu doon loo xam ni lu ñu war a waxtaane la hmm. waaw boo demee ci xew mais paan bi nga teg paan bu ci juróomi nit xisee raxasu rek loolu dèjà dootul raxasu benn ñaareel ba mooy nit ñi bu raxasoo ba pare boo ñëwee jërul joxe ay loxo waaye taw ok euh, noonu lay demee comme euh, ni mu leen ko waxee woon sànq euh, moo doon sama invité tey ci couleur urbaine comme ni ma ko waxee di leen ko fàttali. Mm-hmm. boo nee couleur urbaine rek du wàllum hip hop rek. Mm-hmm. parce que ñun ak ñoom ñoo bokk métier bi. Mm-hmm. parce ñoom dañuy yeete. Euh, di euh, sensibiliser. Mm-hmm. tamit euh, askan wi tamit moo leen tax a jóg. Mm-hmm. noonu lay demee. Mm-hmm. léegi yow la moo tax ci biir kii théâtre théâtre bëri nay volet. waaw léegi yow la moo tax comme par exemple nga choisir si wàllum comédie. loolu nan la fa demee wala wala wala rek du wàllum comédie rek nga choisir si wàllum théâtre wala. non théâtre dafa am trois façons théâtre. Mm. dafa am comédie. Mm. am am am am drame. Mm-hmm. cosaan. Mm-hmm. man ñett yëpp fa mu fëgg ma ñëw. Mm-hmm. bu fekkee comédie la. mën naa lay reetaanloo fii ba suba parce que jàng nan ko. bu fekkee draam la man naa jouer lu daw sa yaram. parce que jàng nan ko. bu fekkee wàllu buur Sénégal gii nu nekk waxuma ma leen réew de. mais Sénégal gii nu taxaw. ci wàllu buur bu mu mën a doon commencé ci Lele Fuli Fakk. commencé ci Alburi Njaay ñëw ba ci Lat Joor Jóob ah. ñooñu pour inter ku leen interpréter. Hmm. man ku mu mën a doon ñëw ñu jàkkaarloo. Hmm. ku mu mën a doon si artiste bu ñuy wax fii ci àddina bi. Hmm. ci Sénégal buur yooyu nga xam ne ñoo fi nekk ñoo xam ne buur yi fés. ku mu mën a doon ñëwal taxaw ñu jàkkaarloo. Euh, xam naa ni ñu koy defee xam naa ni ñuy occuper seen. xam naa ni ñuy ni ñuy gérer seen. xam naa booy jouer cosaan ni ngay def ba xam nga déjà buur boo koy jouer. yow da ngay nekkaale en même temps metteur en scène. ndax buur booy joué ku ni bërit boo ko mën nga ko ni toogal te doo def faute. te bu fekkee da ngay joué théâtre yii ñu def bu nit ni bërit mënoo ko wax ni ko euh, toogal. loolu tamit dafa cee am ba nga xam ni euh, wàllu cosaan moom dañ ko maîtriser xam ni ñu koy defee bu baax a baax. ci wàllu tamit théâtre bi nga xam ni moom lañuy ñuy def muy drame def nañ ci ay formation yu bari. yoo xam ne dañuy génn dem defi formation xam xam xam ni ñuy defee ni ngay taxawee ci seen mm-hmm. xam ni ngay occuper scène bi xam avant seen xam arrière seen mm-hmm. xam xam xam xam xam xam xam xam xam xam ni ngay taxawee ci seen bi ba xam ni bu fekkee sur seen la doo wane ginnaaw yooyu yëpp dañ koo jàng mm-hmm. maanaam affaire bi du question ko dangay ñëw nii rek maanaam euh, euh, salaamaaleykum maaleykum salaam rek. Hmm. ngay théâtre comme gars ni nga koy waxee rek. Hmm. Euh, day doon benn affaire bu nga xam ni. Hmm. day nekk si yow rek nga yee ko. mais comme ni nga ko waxee tam dafa laaj formation mais tamit. la moo la may facilité comme par dee incarné rôle lu buur yi. nga si wàllum expression beeg yooyu. ba xam fi nga askanoo la fi nga askanoo la comme par exemple parce que mu ni ngéwal wax tradition orale. kon buur fi jot a jaar ak ñu mag ñëpp. Mm-hmm. wàllum histoire est-ce que lu tam loolu moo la may facilité. Mm-hmm. comme par exemple booy euh, euh, incarné rôle yooyu maanaam nga am si kii nga am si mm-hmm. euh, facilité est-ce que est-ce que du loolu tamit. waaw xam nga ñun ay géwël lañ. Mm, ba pare. non seulement ay géwël lañu mais danooy comme ni ma la ko waxee léegi début bi mooy jànguñu jàng théâtre bi tëbuñu tëb rek nekk ci nii. dañ ko jàng bu baax a baax a baax mais facilité bi mooy. d'abord nga bëgg li ngay def. soo bëggee li ngay def. Mm-hmm. xam li ngay def ba pare di déglu nit ñi ni ñu koy nettalee. Mm-hmm. nga xam ne buur ay kàddoom daawul lewet. Mm-hmm. buur ay kàddoom daawul bari. ba buur ay kàddoom da koy benn bennal. bar du nu bar waaye seen kàddu tamit day diib ndànk-ndànk benn par benn lañ koy wax. ba pare booy joué buur tamit kàddu gi ngay wax. ak sa loxo biy jóg ci kaw. ak sa tànk bi ci kanam ñooy ànd. boo nee tegg teg mm-hmm. da joxar bi ay baat mm-hmm. boo wëlbatikoo dangay ngay wëlbatikuwaat wane ginnaaw joxar bi waat yeneen ay baat gesticulation boobu nag mm-hmm. ak ak ak noonu nga naan daaka daaka daaka noonu ngay doxee ak ni ngay def mais nit ki avant mu ko yëg moom yow nit yëg ci seen bi automatiquement da ngay jàpp ne yow artiste nga mais instant boobu tamit doo def sa bopp njumaan mii nekk ci atelier bu doon menuisier métallique mais da ngay jàpp ni yow yaay buur bi nga xam ne yaa taxaw diriger ñi nekk foofu ñëpp. Mm-hmm. maanaam da ngay ànd ak énergie dafa am benn énergie bu nga xam ni. Mm-hmm. da nga koy dégager ci scène bi comme ni nga koy waxee tamit da ngay occuper da ngay occuper espace carrément. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tam comme que euh, buur nga gis nañ ko ba si wàllu solo bi tamit da doon benn géant yooyu noonu. mooy géant bi moom mooy xam nga ñun du man xam nga du ma nit ku rëy. mais tey man su may joué buur damay sol ay yére yu bari. Mm. comme am naa taxawaay bi déjà. mais li may utiliser rek mooy fexe am jëmm tuuti. Mm. te jëmm ji li koy may mooy nga boole ay yére yu bari. yu mm. man su may joué buur li ci ëpp. daanaka bu ma sol dix yére dinaa sol neuf yére. yoo xam ne ay yére ay jaget da ciy doon. ay ay ba pare nag doog a jël manto bi teg ko ci kawam. Mm-hmm. doog a takk nga xam ne mooy gàllaaj. léegi li ma la bëggoon laaj mooy comme par exemple euh, kii yooyu noonu yëre yëre seen yooyu ngeen di sol. Mm-hmm. yëre seen yooyu mm-hmm. par exemple dafa am euh, fii nii ci wàllum kayoor gu nga xam ne moom moo leen koy fournir wala yéen accessoire yooyu noonu yéen yéen a wala dafa am benn euh, wàllum benn kër bu nga xam ni dafa gérer wàllum aada cosaan. yoo leen di jox yére yooyu nan la fay demee yéen pour ngeen am yére yooyu noonu. man damaa am yëpp. man sama saag yow yaa ngi ni yor sa ordinateur def sa bagage yëpp <laughs> sonk la yaa nga génne ko man mm. damaa am bagage yëpp yëpp yëpp yëpp mm. yoo xam ne mi ngi ak man mm. fii ci sama damaa am bagage sama sama sama sama sama saak spécial boo xam ne ci laa def sama yére buur yëpp xam ne boo ma fëggee tey jii léegi nii rek ma daal di jóg defal la ni nga xam ne ni nga ko bëggee ok dama yaakaaroon comme par exemple euh, euh, comme ñu bari ni nga koy dafay day maanaam benn euh, day am benn kii bu nga xam ne ñoom ñoo gérer yooyu noonu. Mm-hmm. comme yéen bu fekkente ne da ngeen soxla yéen accoutrement yeeg yooyu noonu. Mm-hmm. ñoom ñoo leen koy kii. Mm-hmm. kon mën nañu wax que ni njumaan lépp lu mu sol si seen. moom moom moom moom moo koy mais téere yu bari yooyu nag. téere yu bari yooyu ngeen di sol ci wàllum buur yeeg yooyu nan la fa demee. non téere yu ba téere yu bari. buur day tos buur xam day takk day takk gàllaaj. da ngay dem ëwal le téré man téré yi ma yor yëpp eh, sama benn eh, rak bu ñuy wax Cheikh Sall. Mm. Cheikh Sall moo ko defar moo defar téere yi. Mm. yi may takk noonu yëpp Cheikh Sall moo ko defar. ude la dañ koy defar comme noonu ba mu mel ni gàllaaju gàllaaju ni ñuy ëwee. Mm. gàllaaju kaare yooyu ak yëpp bot yi tamit la même chose ku ñuy wax eh, asan Kassé. moo moo moo ma ko defaral. ci yëpp nag dama leen boole sama benn saak def ko ci manto bi hmm. ku wax Mor Gay ci watu euh, sama xarit bi Mor Gay mi ngi fi ci watu euh, jakkay murid, hmm. mom moko ko defar hmm. euh, te yoy yip nak ñun suñu suñu comme loolu lañu bëgg te dem nañu nat suñu bop ba mu leer na ñu li mën nañ ko xam nañ ni tamit kenn daqunu ko léegi nak li ci dess moy nga wut sey déguisement nak denc ko ba nga xam ni sa yu leene jubal nga loolu moy affaire bi quoi mais nak amul ben autorité bu ñu jàppale ñoom kenn xanaa sama nit ñi ma la limal ne la ñoo nuy jàppale ci sunuy bagaas hmm. xam ni ñoom bu mu leen nee ñu tey jii hmm. li ma lay mën a wax mooy ñii ma lim nii ak hmm. ñeneen ñu mel ni ñoom su ma leewoon noonu léegi nii man damaa soxla nangam léegi léegi léegi barki Cheikhul Khadim léegi ñu jox ma moo tax du ma leen sax du ma leen sax teg yu métti ndax ndax bëgguma leen koo teg ndax bu ma leen ko tegee ñu ni waaw <laughs> est que tam du looloo tax waaw est que tam du looloo tax tamit ah. euh, théâtre euh, Ngaye xaw a dellu ginnaaw tuuti est-ce que tam du loolu parce que tamit euh, euh, temps ci ginnaaw. Mhm. doon naa gis que ni euh, comme par exemple boo leen génnee ay temps yi sax da daan génnee da ngeen daan génn carrément yéen a ngi doon jouer théâtre mhm. ñu koy gis mhm. ngeen koy teg ci réseau yeeg yooyu. mais boo xoolee comme par rapport ak ci ginnaaw. ak léegi bon li ngay gis léegi kii ay théâtre yi nga xam ni. waa ngaay ñoo ko jouer bëreetul comme yéen seen façon théâtre yi ngeen doon def. gisatuma ko bokk. ay temps naa leen kii daan naa leen gis ngeen di génne ay CD. di ko jaay mais dama gis que ni peu de temps euh, léegi da ngeen xaw a mel ni lu xaw a euh, toog seen ruq daal. Mm-hmm. nan la fa demee noonu. waaw ni mu demee mooy xam nga ñun toll nañ fi ay jamono yoo xam ne. boo limee daaray Kocc. Mm-hmm. lim baara yëgoo. Mm-hmm. boo limee waa Thiès da ñuy lim. te loolu liggéey woon boo xam ne euh, dañ ko dañ ñu doon jàppale nag. parce que boobu Saliou Diagne fi nekkoon ñu toog ba ci yàgg Maguette As Diagne ñëw. Mm-hmm. As Diagne bi mu fi nekk ñun As Diagne bi mu fi nekk affaire culturelle lépp. Mm-hmm. ñoo ko yoraloon. Mm-hmm. fu mu soxlaa culture damay woo téléphone. ni ma dama bëgg ngeen defal ma nangam ak nangam. ñu dem defal ko mu jàppale nu film yu ñu fi daan def. dem si yàlla Saliou Diagne daf ñu daan jàppale bu baax. mais ñi fi nekk. xam ni ñoom ñoom lu leen neex la def. dimbaliwuñu kenn. jàppalewuñu kenn. ah xanaa wax ba wër la. dañuy wax ba wër la ah bu nu paree lan doon wax fàtte ko foofa ah, loo fiy def fii ci aar yaay jël say propre def ko wala nga am sa ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo leen di dimbali ci seen jiba mais amul benn autorité boo xam ne mi ngi ñuy jàppale fii ñoo xam ne ñoo yor affaire affaire ñi yor maire bi tout ñëpp amul ku ñu dimb parce que am te te te aar bi mm. fi ñu toll fii ñu nekk ci dëkk bi mm. man defuma ko yàlla moo ko def. gis nga ci wàllum théâtre waxuma way nag ndax man du ma way waxuma musique waxuma leen. Mm. mais ci wàllu théâtre mm. ci wàllu théâtre mm. non fii tëggagun fi ku ma ci jiito sañ ngaa favoriser nit nag teg ko ci kanam mais ku ma ci njëkk man. wala nga gën ma koo xam wala nga gën ma ko maîtriser. wala nga ñëw yow moom ñu favoriser. ñu teg rôle par rôle. ñu di ko jamante man ak yow. Euh, bu boobaa na nit ñi taxaw see euh, jugé. kon kon lu ñuy def fii ci aar. ñun war na nañoo jàppale ndax depuis 92 ba léegi maa ngi théâtre mm. te 92 jigéen ñi ci sa juddu woon sëyi nañu. Mm. góor ñi ci juddu woon ku leen jox jabar ñor ko. Mm. mais amul am na ñu doon jàpp nag. mais fii ñu nekk nii instant bi mairie bi dimbaliwuñu joxuñu ñaar dërëm xanaa wax ba wër la ah boo organisé du ñëw du duñu yónnee. duñ la defal dara. ñi lay defal mooy sunu xarit yi rek. jàmbaar yi nga xam ni loo soob ñu dimbali la waaw ku mel ni xaadim ndiim ndiim sele kor njaay xam ni moom euh, euh, euh, yorul yorul fonction yorul mairie mais mi ngi jàppale artistes yi waxuma man rek ku mel ni Balla Diop tailleur tailleur la fi rajo lay waxe amul lu nit di def ci dëkk bi te boo demee du ci jàpp amul nit amul lu nit di def place am damay mujj ni ko Balla tey ngay tëj place bi. mais loolu mooy yoon sax. loolu mooy mais mais bu ko neexoon bañ. mais loolu mooy yoon sax. parce que pardon bu ko neexoon bañ. parce que moo dem jàngi métier mm. moom moo liggéey alalam. Mm. moo ko moom mais ñi nga xam ne tey subvention dafa am fii ci mairie bi. Mm. ñu ni bit bi culture. da cee bokk te chaque instant at mu jot ñun dun na ko jox. lu ñu waxoon au début ba ñu defee ni ñun ay dof lañu muy dog a ñëw di jóg a jël mairie bi. lu nu wax. bon yéen amulen attestation ah, amulen leen hmm. ñu ni ko lol am ko depuis 2002. Hmm. mu xamni fofu daana daan na hmm. mu ni non ñu demaat di laajaat suñu subvention ba tay attestation daana daan na mu ni non yéen fonctionné wu len manam maanaam wu len ñu ni ko ñu ñi yëngatu à chaque instant dañuy def ay manifestations dañuy def ay tournage mais yëngatu sax day fekk yëngatu sax day fekk sax moom ben maison bu nga xamni maison de la culture. wala yeneen ak yenen parce que bo boo bëggee gàntu nag boo bëggee gàntu loola neex ngay wax. mais nak xolal Euh, mairie ba ku defe ni siège ba yaa ko moom. Mm. yaa ngi nax sa bopp. Mm. population bi ñun ñëpp a ngi déglu te kenn ku ne xam nga li xew. Mm. waaw ñun nag yarewuñu euh, tooñ nit. yarewuñu saaga nit yarewuñu wax lu nit. nit ñi seen i carte la ñu yor te bis le le jour J viendra. première première première mandat. non da ngay def sa da ngay da bind li lay fal. mais deuxième. li nga fi defalee lay fal yàlla na yàlla bàyyi ba ci boppam. Mm. incha ok noonu lay demee comme ni mu leen ko waxee euh, njumaan moo doon sama invité euh, ci euh, couleur urbaine am na am na ko. ok ok noonu lay noonu lay demee léegi. Mm-hmm. moo la doon laaj comme par exemple Ndioumane bi nga yàggee nekk ci aar bi. Mm-hmm. ñaata ñaata at nga si def ñaata ñaata at la Ndioumane def ci aar bi. 92 mm-hmm. la yooyu ñaata at la. 1992 laa njëkk a yéeg seen moom laa la wax nii. tey ñi ngi ci 2020. xam nga loolu yàgg na. 28 mhm. ans war na koo mat. Mhm. ok noonu lay demee mais comme par exemple da ngay jël euh, wàllum art. Mhm. bu fekkente ni au niveau Sénégal. ba ci Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire sax da ngay gis que ni euh, foofu l'art nourrit son homme. Euh, da ngay gis Ivoiriens yi dañuy gën dem France feneen ak feneen la moo tax la moo tax théâtre Sénégal bon du ma ni jéggiwuñu frontière wala yeneen ak yeneen. Euh, la moo tax la la moo waral que ñun tojuñu fenn. Mm-hmm. à part peut être yi ngay gis si euh, euh, kii TFM wala leneen la moo tax comme par exemple ñun tojuñu fenn. Mm-hmm. yow théâtre bi ngay def mënoo ci am oto. Mm-hmm. wala yeneen ak yeneen te pourtant ivoiriens yi frontière rek moo ñu moo ñu kii la moo waral loolu manque d' organisation la. wala book ba xam artiste seen biir ñoom ñoo booloowul wala nan la fa demee wala book dañuy xeexante suñu biir nan la nan la fa demee. non non xam te ñun xam nga ñun olof la ñuy wax xam nga am bu fekkee euh, xanaa ñu traduire ko mm-hmm. benn lool ci la bokk mm-hmm. ñaara ba tamit mooy gis nga euh, gis nga théâtre bi mm-hmm. naa la wax leen de maanaam oh. ok Adja gis nga théâtre bi naa la wax leen de am na ñoo xam ne euh, waaw mi ñi ngi may woo sama téléphone mais xam naa dañ may woo ci serveur bi mooy gën a yomb yaa ngi xam nga xam nga théâtre bi. Hmm. théâtre bi hmm. du question que léegi da ngay rafet rek. allo allo na def allo. allo. ça va na def. waaw Tafa ñu ngi waaye doon li bu baax. Euh, di ziar euh, sama jarbaat sama xarit. waaw. Euh, Modou Mbu. ah góor a la am Tos <laughs> maa lay euh, ziar bu baax a baax. alhamdulilah ñu ngi lay ziar yow it bu baax a baax. Euh, toog di bàyyi xel émission bi. merci beaucoup. Uh-huh. dèjà vraiment mu intéressant trop. merci beaucoup merci. donc di la encourager d'abord yow Tafa. Mm-hmm. parce que nag émission nii rek émission bépp émission boo yor rek. Mm-hmm. war nga ci sóoraale actualité boo xam ne si heure bu ñëwee. Mm-hmm. Euh, boo ci waxtaanee rek euh, nit ñi kenn ku ci nekk mën ci gën a bàyyi sa xel. waaw waaw waaw waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. lu mel ne actualité bii nga xam ne moo lépp jamono ci jamono yi mm-hmm. toll di wax. Euh, te muy balaa boo xam ne yàlla daf ko wàcc ci àdduna bi yëpp. amiin dëgg la. di ñaan nag yàlla yal nañ ci yàlla bu jël ak jàmm. amiin amiin amiin. bépp ku mu dal suñu borom def ci yow tawfeex. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. léegi nag di dellusi nag ci kook nga xam si ko invité boobu di njumaan. Euh, dama ko dégg sànq mu ni euh, moom euh, su ma déggee kalan wax am dafay mel ne moom paaka ñaare boob la maanaam mhm. dafay mën a ci macha allah ci wàllu aar bi mhm. mu lay dëggaleel loolu mu wax mhm. di la wax dina c'est quelqu'un boo xam ne mën wax ne fierté la ci ngaay parce que bëgg aar xar bëgg la moo gën dëgg la de waaye boo ñaar yépp am solo waaw billahi wallahi olof dañuy fay fan wax naan kenn ku ci nekk la nga nàmp rek ngay taxaw dëgg la waaye laam man xam naa talaam xam naa gi mu ci am waaye xam naa bi mu ciy jànkonte billahi wallahi te taxul mu rocceeku taxul mu yox yoxi taxul mu ci xam rek ko affaire la mbir da nga ci dem ba jeex jërëjëf euh, euh, xam naa salaam boobu wér parce que euh, tout simplement ni ñu ko wax a sànq te na kenn koo xam ne yal na ko yàlla yërëm mu yàllaay Saliou Diagne. joué na fii. benn bis. Mm-hmm. pièce boo xam ne fii keroog. Mm-hmm. wax dëgg yàlla képp ko taxawoon foofu. Mm-hmm. sa yaram daw na. waaw bilaay wallaay man ci sama bopp keroog man maa nekkoon géwël. waaw.

keroog métier métier président am moo waral mu yëkkati benn sob mhm. euh, ni nañu ko. Mhm. jëmmale aar bi. bilaay walaay mu ñu dem jël ko dem jënde ko orchestre. voilà donc tey. Mhm. Euh, dañuy wax rek ni. Euh, ku suuf bu sutantee dañu koo jar. barke Rasulullaay. parce que tey ni mu ko waxee. ñi fi nekk tey di ko def. waaw ko ci. billaay mhm. kenn ëpp ko ci xalaat. waaye ko ci jërëjëf laa waaye li ma la wax rek. Mhm. bu sotantee dañ koy jàll. billaay walaay. buñ ko ci jàppale woon wala mu am. ñoo xam mhm. ne mel na ni ñu ngi léegi. ku mel ni sama waa nga xam si nii ca la ko Ndiaye. ma koy billaay walaay nga xam ni dëkk mu sóoble la. du fekkee soxla kenn te dugalu ca la mu man maa la loolu de la mu toll. billaahi wallaahi yorul benn ndomb yorul benn responsabilité. waaw barke mu ni kon bu dee ñette wala ñoo mën a daanu ci kenn bi gën ci ci digg ba. xam mm. nga comme tey. Euh, mm. ku mel ni moom. Mm-hmm. ku mel ni que Balla mi mu cité ak ñeneen ak ñeneen. bari ak am ñoo xam ni ëpp nañ leen ay moyens. Mm-hmm. Euh, gën leen a dëkk ci dëkk bi wala boog ñu dëkk ci dëkk bi. comme hmm, yéen billaahi wallaahi bu ñu defoon ñoom kon defe naa tey aar bi war a mu gën a yees weesu fii. Hmm, hmm. waaye nag ma koy wax rek ne ko. jàppal te xam ne bu tàggul dëgg tikk incha allah incha allah yàlla baax na. billaahi daal naa si ñëwoon danaa ci contribué euh, di nuyu seen technicien Adja Koyaate. Sapa yooyu dina encouragé vraiment ci taxawaay bu am solo bi. merci beaucoup euh, Euh, macha jërëjëf jërëjëf Lam jërëjëf laam jërëjëf. waa yow tam ñu lay jaajëful baax ah ñu lay jaajëful baax. parce que ñu waaw ñu ñu koy wax tam contribution euh, rafet na trop. Mm-hmm, ku ñàkk ñaan la parce que même moom tam ci wàllum aar tam gis nañ euh, mm-hmm. lim ci lim ci def. mën na ci lu bari. Mm. lu ci bari loo xam ni théâtre la. moom mi mën na ko. te boo ko dalalee. Mm. dina la suttil xam-xamam incha allahu rabbi. Mm. Mm. Ah, léegi comme par exemple dama la comme léegi dama naan euh, yan avantage yan avantage yu nga yu xam ni yow aar bi indil na la ko ah. Mm-hmm. yan avantage yan avantage la ah, la jot a indil bi mi ngi nekkee ba léegi. bi ma ci nekkee ba léegi. xanaa am ci ay nit yu baax. ay nit yoo xam ne nit ñu baax lañu. mais actuellement ni ñun ci aar bi. Euh, euh, loolu lañ ci am. am nañ ci ay nit yu baax. am nañu attestation am nañ ci tamit kart euh, euh, carte BSDA. Hmm. Hmm. am na ku nekk ci ligne bi allo alo allo. waaw euh, sëñ ñu ngi lay dégg yokkal yokkal sa baat tuuti allo. asalaamaaleykum. salaam. Ah, kilifa gu màggee gi sëñ Xaadim ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaanal jàmm jërëjëf ndim aha lolu xam xam billahi barki rasulullah aha aha man nattable wu nga yokk sa baat tuuti ah. billaahi dim boo ma ko waxee gëm ko. waaw. jàppal loolu laa la mën a wax. incha allah rabbi ndim jërëjëf jërëjëf bu baax a baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ok ñu koy jaajëfal bu baax. ndeysaan. Hmm. Mm, waaw moom mi ci sama ay nit la bokk. Hmm. mu doon ku baax koo xam ne dalay woo. Hmm. di la wax bul bàyyi mukk fi nga teg sa tànk foofu baax na. jàppal bis dina ñëw. kàddu gi mu mujj wax nii njëkkuma ko wax tey. dinañu seet dinañu jàppale. dinañu woo fu nu nekk danañu fa fekk. fu ñu nekk bu ko déggee lu buñ ko ko waxul dañuy woo ne lu tax waxul leen ma yaa ngi bërëb sàngam. Mm. mais jinne nag mënul lu rey la jommal la foo dëkk ma la mm. mais ñi lay ñi jàppale comme par exemple su wàllum conseil. Mm-hmm. est-ce que am na ñu nga xam ni euh, financièrement dañ lay jàppale ak ñu nga xam ne am nañu relation. Mm-hmm. ci wàll bi ngay yëngatoog yooyu est-ce que am na ñu nga xam ne financièrement ñu ngi génn seen mm-hmm. poste. maanaam ba nga dalee dugg ci théâtre ba léegi comme ni nga ko waxee côté conseil ak yeneen ak yeneen. ak tamit seen côté relation est-ce que tam ñi euh, ñu ngi la ci jàppale. ci côté boobu côté euh, ñi ma xam ñi may jàppale ci côté partie finale mooy ku mel ni xaadim di mi hmm. daf may jàppale de tort à travers hmm. lépp lu ma soxla wax naa la ko tey su ma noonu damay tourner tey théâtre léegi-léegi hmm. dama bëgg nangam ak nangam man maa ko yàggal dama ko naan man duma la teg lépp parce que man ku dul gàntu duma ko teg lépp ndax yaa moom lii bu la doyul noo fabal du la doy te lii muy def nii dafa am ñu mu war ñoo xam ne loolu du seen xaalis ñoom loolu budget la ca mairie ba jon koo moom ñoom lii mais su ko neexoon bañ parce que mu alalam la moo ko. mais loolu mooy yoon sax parce que. normalement normalement dëkk bi dafa war a am ay spectacle dafa war a am ay spectacle parce que boo demee ci yeneen kii day am ay euh, kii nga xam dina am ay spectacle bu ko defee dina mën a motiver comédien yi pour ñuy nekk sur scène ak euh, yeneen ak yeneen en plus tamit euh, est-ce que tamit jaaruwul tamit ñu commencé am école de formation. Mm-hmm. ñu recruter ñi nga xam ne instant yi ñu ngi fi ñu gën leen a xam ci théâtre pour ñuy jàngal jeunes yi. Mm-hmm. pour ñu gën leen a motiver tamit de telle sorte que tamit ñu xaw structurer ñu structurer tout dal pour ñu gën ko professionnaliser. conseil communal de la jeunesse. Mm-hmm. ku ñuy wax. Aziz lay jiite ko. doon mm. suñu xarit doon ku baax. Mm. mos nañu def ñu defal leen benn prestation. Mm. mu ne li leen mën a fayee mooy ngeen woo seen booy yi nga xam ne ñoom ngeen ñooy seeni booy. ci turu bi fi nekk yëpp ñu ñu ñu ñu defal leen formation. boo xam ne ñetti fan la durée keroog. ñoo ko doon def fële ci école 6. école ba ca ginnaaw école ba ca ginnaaw garage ba. Hmm. fa la ñu yendu ñetti fan ñu defal leen formation. Hmm. kon ñooñu ñu ngi ciy jàpp mais gis nga ab sàcc bu duggee ci kër. Hmm. Ah, xar ma mbëkk ko. xaj ba fa ne war naa rus. am dégg nga ma déggoo ma wala. mën na xam nga xaj bi gardé ko tax dugg. xaj dafa war a gardé. mais bu nee xool di xool ba xar mi mbëkk sàcc bi. kon kooku war naa xoolaat boppam xaj boobu garde indi ko. ñii rôle yi ñu yor di ko def muy ay nit yu baax ñu dëkk ci dëkk bi li ñu war a def am na ñu mu war defuñu ko. xamal ma la dinaa la fii ay Saliou Diagne. Saliou Diagne ñun ba film yi ñu daan def. dañ daan ñëw ne ko lii kat lan war a def mu ne bu ma leen ëwma lépp da lii ngi nii. As Diagne wax naa la ko fii. Mm-hmm. dañ daan ñëw euh, kii Ngom mën na mën na maa seede. Euh, kii Ngom mën na ma seede moo dëkk fii Mbambara moom lañu daan booleel mu nuy jàppale c'est parce que ñooñu dañoo xam ne lii ñu ñuy jox ñun ñoo ko moom demuñu Pire laaj ko ko demuñu kees laajte ko fa demuñu Tivaouane laajte ko fa mm-hmm. ci ñi yor suñuy autorité lañ koy laaj mm-hmm. parce que ñun loolu moom la war a am joxuñu ñu ko nag ñu ngi def li ñu mën ba saa yu fi jógee nag mais théâtre moom duñ ko bàyyi mm-hmm. man fi ne li may gis nii ba keroog may sàngoo suuf du ma ko bàyyi. Hmm. baye boo ñu ni damaa ñàkk fayda parce que tey ji maa ngi koy def ba di ko defandoog ñoo xam ne ñoo sama dooma maase. Hmm. mais loolu mooy dëgg sax te naa ko ba ci ko hmm. defandoog ñoo xam ne ñoo samay sët ñoo loolu mooy dëgg sax loolu mooy dëgg sax. wante waxtaan bi am na solo lool. Euh, temps bi temps bi moo nu xoj léegi. yow euh, comme boo doon tàggatoo instant bii nii ban message ngay gën a lancé ñi nga xam ni jeunesse bi nga xam ne bëgg nañ théâtre mm-hmm. ak lu nga xam ni yàgg nga koo denc euh, sa xol. Euh, mm-hmm. tamit kii occasion bi présenté wu. Mm-hmm. nga wax message bi nga xam daal am na importance bu nga xam ni bëgg nga koo véhiculer. ñu ñu ñu ñu tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy di la gërëm d'abord yow parce que nit ku baax nga. nit ku dal nga nit koo xam tamit euh, am esprit de partage nga da ngay bëgg di séddoo sa xalaat ak sa xam-xam ak doomu aadama yi mm-hmm. loolu lu am solo la ndax man maa ngi def fii émission mm-hmm. bu la neexoon nga ni njumaan day def fii émission bu ma ko invité xam nga man naa invité keneen mm-hmm. mais da nga woon ni ma nañ def nañ defandoo émission bi euh, loolu mu doon lu am solo di gërëm Adja Koyaate moo xam ni moom sama xarit la intime maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm rek di ko ñaanal gudd fan ak wér di wax tam li ma ko yéene eggagun fa mm. yàlla nañu yàlla bàyyi ba ñu yegg ci li ñu ko yéene ñun mm. euh, di gërëm ñëpp nag xam ni suñ fi waxee lu dëng ñu ngi tuub bu baax di jéggalu mm. lu ñu fi wax mu jub tamit suñu borom la mais euh, am na ay projets yu ñu jub fi ne nii war na maa dem Dakar mu tourné ji koor gee làqarti ndogu kooku man maa ko bind fële ca ñu ngi ko ñu ko man maa ko war a def man ak nguur yi man maay man maay bind euh, sketch yi ànd ak nguur yi ñu def ko parce que bi ma ko bindee man concept bi ma gis man nguur yi moom laa jàpp ne moo ko man mm. ma ànd ak moom ñu koy def trente sketch yoo xam ne fi ne nii bind naa ko ba pare chaque corps dañ koy tourné mm. fële ca dakaar projet yi benn la mm. deuxième bi tamit bi des mooy war naa dem samedi bi ànd ak téeri ngaa yëpp xam nga ndeysaan ma di leen nuyu ñoom Balla Diop ak ñoom seex si la dañoo war dem euh, Grand Théâtre def fa seen euh, défilé boo xam ni waa ngaay lañuy représenté foofu te danañu leen gox bu nekk. Hmm. gox bu mu mën a doon ci ñiy présenté buur ba nga xam ni moo fa gën a fés. Hmm. moom ngeen di présenté ñu woo ma ni ma yow yaa ñuy solo Lat Joor foofu ci Grand Théâtre kon xam nga kon loolu am na solo. Hmm. yàlla na yàlla dolli jàmm daal. di wax ni rek buñ fi waxee lu dëng ñu ngi tuub bu baax lu fi jub nag yàlla la quoi ñu ngi jéegu lu mu ok noonu lay demee ci couleur urbaine comme ni mu leen ko waxee woon euh, Ndioumane moo doonoon sama. invité di béggé képp ku nga xamni ni euh, yaa ngi déglu couleur urbaine ak euh, mamen teuf connection mais nak di nuyu at encore khadim dim bu baax di ñaanal jam diko ziar diko ñaanal guddu fan ak wër bu baaxa baaxa baaxa baax hmm. ok non lay euh, démé à la prochaine di béggé ñepp di ziar ñepp I'm out ak bép caaxaan man la bon hungry the real MC from underground soja déglu lu suma al bi may dëngal fi ci Sénégal sunu gaal yi taf leen boot bi nelaw bay yando sunu gaal yi tokke bañ nor nekk ci bekkoor su nekk ci koraako jàpp ay jàmbur ti lor ndax ñoom dañu bëgg seen